war Sidi Diop table bi Ibou Bambara moo ko jël jagleel ko lutteurs yi ñi ñëpp toog ay champion lañ maa ngi ziar. waaw maa lay fay. Ibou Bambara tey dafa jël table décoré leen ñeen champion yi Kaolack ban sentiment nga moo la animé. waa parce que di kontaan ndax Ibou suñu grand bu baax la. ku gore la boo xamante ni lépp luy def maa mu jiitu si ñoo dañ koy sant bu baax de wax na li yombul quoi di rafetlu si initiative bi xam ne lii am na solo quoi rafetlu na tam ñu koy kontaanee ñun waa Kaolack ndax li ci amoon ñaari ñu mel ni moom wala ñett ñu mel ni moom Kaolack dinañ avancé di ko sant bu baax di ko gërëm si affaire maa ngi ziar Baye. waaw ñu ngi lay ziar Baye. tey loo yëg. waaw contentement rek. dafa mel ni Ibou xam na fi ngeen ko toll waaye tam am na fi ngeen féete Ibou. non Ibou bu ñu amoon ñaar ñu mel ni moom wala ñett ñu mel ni moom Kaolack kenn dootul chômage barke Alxuraani Karim yéeg nañu jox nañu suñ cër lu mu soxla lu ne ñu moom lu mu lu ñu ngi dañ koy ñaanal fan wu gudd ak rek lim man ren déwén yàlla man lu ko raw barke Alxuraan ci kaw ca ci lu baax rek Ibou mention spéciale Ibou Bambara jaajëf Fall maa ngi ziar booy ñu ngi dolli si yàlla. waaw tey loo yëg. waaw kontaan nañ trop wax dëgg yàlla. ndax amaana ne bu doon ñu ndongo duñ paas fii kon Ibou bu jëlee fii may ñu ko kon nañuy sant yàlla ko julli si yoon bi waaw di ko ñaanal lu mu mën ren na ko man déwén quoi. ay champion kese ñoo toog. waaw ay champion kese toog. mais Ibou moo ren décoré. waaw waaw ñu ngi ciy bég bu baax a baax a baax. su am na fu leen Ibou def de. waaw waaw mu dem am na fu ñu ko def suñu xool waaw waaw. waaw delloo béyee gars yi. waaw mais kese ñoo bokk taabul nu mu waa nii. waaw gis nga moo di acte acte bu naaj rek ñu ko quoi di ko sant di ko gërëm di wax ne lii acte bu naaj la quoi na mbëri aussi kawar lañ la demee waaw. waaw delloo ziar defal leen lii. waaw Ibou ñun ak ñoom benn lañ ko ndax ñoo bokk lépp ñoo bokk làmb ji kon donc rafet na tey bu lii xewee xam nga. ñu ñëw teewe ko di ko rafetlu di ko remercier bu baax a baax ndawal ci ñun quoi waaw ñu koy sant di ko gërëm di ko ñaanal dooleem gën a yokk quoi vraiment nit ku baax la ñu koy gërëm. waaw sant rek lépp nice alhamdulilah. waaw ñu ngi koy dund bu baax a baax. tey ay champion kese ñoo bokk table de. waaw waaw champion yi ñoo bokk ndey ñoo bokk baay Kaolack la rek kenn mënu koo xal ñaar waaw lépp Kaolack la. waaw delloo ziar lu bëri. Eh, champion bu mag maa ngi waaw maa ngi delloo ziar lu bëri bëri ay champion kese ñoo bokk table Ibou defal leen lii ban sentiment nga yëg waaw vraiment di ko ñaanal groupe a wér a borom baax la nee naa kaw meloon ni Ibou rek Kaolack dina avancé chaque chaque année mu def ko day dimbale doomu Kaolack yi ak ndaw Kaolack yi yëpp nga avancé ñu ko ñaanal gudd fan ak wér-wér mu koy yàgg di ko def di jàppale ñu mbëri xaaru nga am combat a ñàkk am combat ku ci am soxla boo ñëwee mu fajal la ko encore ay bu amee bés dañuy éviter ñu mbëri yokku suñu jéem yokku suñu lépp vraiment di ñaanal ñëpp waa Kaolack yëpp di ñaanal Ibou bonne coordination di ko ñaanal gudd fan ak wér-wér mu dem ba indi xewal bu yokku am man-man bi incha allah